yàlla. nga ne kaso lan moo la fa manqué woon. jigéen portable aw ma fa benn problème dóoruñ ma paqueté wuñ ma xasuñ ma waaye imagine nga di tëdd ci lalu ñaari million di taal kilimu trois chevaux di birangu nu mu la neexee. ak ñu booleel ak góor. Mhm. yéen ñaar dong ci nii. déedéet 107 góor laa doon tëddal. 107 personnes. téeméeri góor ak juróom-ñaar damaa traumatisé wu. baaxut de loolu rek moo ma fa mag mais boo namaan jigéen noo doon def boo ni ngay jëlee sa téléphone boo ko namaan noo doon def. ma dama dama daan toog suma téléphone mel ni lu vibré mais mais benn problème la am bi ma duggee kaso. mooy ban <laughs> révélation la atia. damaa dugg kaso. Uh-huh. ma nekk ci xam nga foog ne affaire bi de procédure la quoi. Mm-hmm. génn ci stressé toog daal ma ne waaw Papa Ndiaye Thiou yi géej naa yëngatu de. Papa Ndiaye ma yàlla ma rafetal kàddu yi. ok donc comme kenn laa yem. Ah, waaw waaw Papa Ndiaye ok waaw léegi. Papa bañee du ma dugg ci douche bi jël saabu yëngal Papa tëgg raata bi mu bañ six ma dem ci masoor ba na ko musiba am na di Papa Ndiaye géej naa fi ma teresa lii daf ma traumatisoon mais gis nga bi ma génnee kaso ba sañse. waaw air bi laal ma rek Papa Ndiaye jóg du ma ne ko yaay defee ah. stress la woon mais stress la woon. ak ma nekk nekk sexologue di jaay garab. billaahi ak suma koor gi suma waroo xam ne stress dina yegg foofu. Mhm. sérieusement parler li may wax. mooy expérience du waxu télé de. mooy dama dugg ci wanag bi jël saabu. Mhm. xalaat dem telantar woo ki gën a nekk suma seetaan waxuma jabar waxuma ker dama nekk suma seetaan rek. ku jàpp na yow la yoon. donc bi ma demee ma woo ko na ko nangamtaan ma ci téléphone bi. Mhm. mu di ma nangamtaan ma nekk fa jël loxo bi roof si papa Ndiaye def lu ne jugul. ma nekk am na man nag automatiquement li lay wane lu am solo lay li lay wane société Sénégal mën na dof loo nit. Mhm. ci saa ma xalaat liggéey. Mhm. parce que dama daan woo ay nit mu ne ma dem naa ci benn sëriñ ñu ne dañ la def lu la dugal kaso ma ne ko non. Mhm. mais bi ma loolu dalee automatiquement ma accepté que wii liggéey la ba ma dem ci masoor mu ne ma du liggéey. dégg naa Mara la ko waxee Mara Niass. <laughs> non non non non non. <laughs> ah man Mara Mara bu ma doon bu doon yëre mu tudd ma sax caleçon. <laughs> <laughs> donc bi loolu amee ma toog ak ma zone mu waxtaan ak man na ma stress la. Mm-hmm. jox ma ay garab pour wàññi stress. Mm-hmm. mais mu amélioré tuuti mais wallaahi tallaay. Mm-hmm. biñ ma joxee papier libération. ba ma def suma trois pièces. génn ci biti laal suma parfum bu neex nit ñi Cheikh Ahmed ma gestu affaire bi firi. permis gisuma benn garde bu ma wër. papa Ndiaye taxaw ma ne ko yaay defee ah. kon euh, kii nag dafa euh, posé question. nee kon sa papa Ndiaye yi ngay jaay.